waaw mbir mi dal sama kaw de confiance rek la ma dale man sama appel Baye Diouf fii ci Touba loolu lañ may mosal de temps loolu lañ may wooye yaa homme de tenue benn rouge bu ma xamanteeloon ci période de màggal Kër Ñang xamante wu sax doomu euh, kilifa gu nekk Kër Ñang la xamanteel bon période boobu euh, ñu wax ba ma abal ko sama kër ma xam ne comme que dañ ne xale bi def carrière la euh, ñu affecté ko Touba bon ma sa seen yéene jàppale ko ginnaaw bu mu ko sakkoo parce que man xaw ma ko ci ndey xaw ma ko ci bàyyi musulman bi moom benn relation bon mu ñaan ma mu abal ko sama kër fayul courant euh, fayul loyer waaye nag dama ko abaloon kër gi pour mu sàmmalal ma sama kër parce que période boobu xamoon naa ne meuble yi ma toog nii tey ak euh, quelque yeneen yu matériel dinaa ko fi commencé indi ci période bala ñuy màggali ndaxte damaa amoon yéene commencé euh, samp sama kër taxawal sama kër gi ci Touba bon loolu nag ci laa ko bàyyee ci kër gi bon ba xew-xew bi am euh, mu fekk ko fi moom dong kott nag moo doon yeewoo ci kër gi li li ñu fi jël itam moo nag moom dong kott ñoo xamante ne mi ngi ci kër gi. man xew-xew moo fi xew nga xamante ni tey moo tax nga démarché fii ci Sénégal. Euh, xew-xew bi moo di le 12 novembre dama fi ñëw am na xale bu nekk Italie bu ma jaay sama kër fii ci koñ bi ak yeneen kër yi ma fi jaay ak itam xaalis bu ma dencoon ci restaurant bu màggal gi euh, ñu war a nag karole kër gi rek gi ñu nekk nii dañoo war a nag karole façade beeg façade bi parce na damay xaw di sonn sax màggal ma ñëw peinture bi ñu estimé ñu ne. li koy karole rek day nekk ci euh, plus de six millions six millions yoo xamante ne bii euh, main d'œuvre ñëwut amul main d'œuvre ñëwut suuf ñëwut ciment ñëwut ci biir loolu nag ci lañu ñu nekkoon ak xale bee li ñu koy bëgg a defaral euh, bu ñu amee quinze million ñaari chantier yëpp dina mën a démarrer te benn bi dina pare léegi le 12 novembre ñëw naa fi xale bi yónnee ma pare Italie 4 euh, millions bi ma yónnee 4 millions mu ñëw fekk fi 9 muy 13 13 millions laa fi dencoon yoo xamante ci benn walis diggante le 12 ak le 17 nag ma wax ko ne ko na veillé sama néeg parce que valeur réew fi ñu toog ba le le 2 le 3 guddi le 2 mu ne wàcc na crédit boobu décembre mu ne wàcc na euh, heure ba mu wàcc. Euh, soxna yi 16h soxna ci kër gi yendu ci kër gi ba lendemain jeudi le 3 mu may annoncé ne dañoo euh, cambriolé sama paie sama palanteer bi fii tey euh, bassin bi man li ma xaw a jaaxal mooy bi ma wëree kër gi scénario bi ma xool ko lu ëpp 5 6 7 8 ba 9 fenêtre mi ngi ci kër gi en tout ak deux yi nga xamante ne bi yeneen trois yi nga xamante ne bi wala quatre yi nga xamante ni moo nekk ci ñaari néeg yi ma ko abal benn néeg bi ma ko abal ak néeg bi ci topp ak sama ñaari néeg ak sama benn néeg foofu côté boobu deux trois quatre quatre quatre fenêtre mi ngi fi fenêtre yëpp ñu bàyyi leen fi ak yeneen yi ngi si entouru kër gi entouru kër gi am na bon quatre cinq six sept huit neuf dix parterres yoo xam ne yëpp ay grill ak ci seeni bunt ñu bàyyi yëpp ñëw ba ci palanteer bi ci baaj bi sama boori sama bunt sama biir néeg di ko dajji loolu ko ma xam kese ko man a def. moom lan moo ko xamal ne am nga xaalis fii yaa ko expliqué ne ko dama fi denc xaalis. vraiment sama moom bu waxee sa diggante yàlla waxal naa ko rek ba teel a sonn ci kër gi waaw xaalis bi am na lu mu ci gis fa mu ko gisee xam na ko xam naa ko. peut-être màggal gi moo nu gën a mobile bon ñu koy yónni. Euh, comme que moto la yore bon mu ko ñu koy yónni mu nuy demal ay ay ay course wala si boobu mu doon jël naa si xaay ba tey yónni ko. confiance boobu nag nga mën a amee ci nit euh, en tant que yéen ngeen daje rek ci ay màggal ak yu demee noonu ba ngay koy wax say xaalis fu mu toll fu mu nekk. waaw loolu laaj nañ ma ko ma ne am sax ñu am na sax ñu ne ma xanaa kii def la xërëm ak def la lii def la naa ma ne man daal bon amoon naa confiance que ne euh, golo moo la gën a xam kër gu bari xaj. un homme de tenue xale buy def carrière bu ma ñëwee mu may dawal safa ak marwa euh, ba jege ma bay dugg sa néegu biir euh, ma jàppoon ne bon diggante le 12 ak le 17 euh, mën naa fee man naa ko avertir mu veillé sama néeg te bàyyi fi xaalis bi ñëw commencé sànc bi jàppoon naa ne lii du ma dal bu bu ma amoon benn soupçon ci moom du ma dara bu dul woon homme de tenue itam sax du ma am du ma am ci moom confiance boobu ni mu nekk homme de tenue ma am moo tax ma am confiance ci moom parce que dama jàpp ne benn homme de tenue day représenter euh, mille personnes wala junne yi nit bon. tey ji mën nga ñu dikkalaat ci moom turam ak euh, moom tey ji ñaata euh, weer la jot a def fii ci kër gi ak euh, ci ban service wala ci ban commissariat la nekkoon fii ci Touba. waaw li ma naxee nag dafa ma naxee commissariat bu Touba waaye bi ma demee ci ay kilifa am na lañu ma servirul foofu am na commandement spécial bu mu fi nekkee loolu moom ay kilifaam wax nañ ma ko ginnaaw bu yëf yi feeñee li gën a tax sax média bi yëguñu ko woon ay kilifaam ñoo ma ñaanal ca départ ba nee ma. nañu bàyyi ba kilifa yi yëg ko yaa ngi dégg foofu dama mën a def euh, ransom bi may def nii ne ko ci xam dara sax may nañ la si un million euh, ransom boobu laa bëgg a def waaye kilifa am ñaar ma ne ma ñu staan bàyyi ba kilifa yi yëg ko kilifa yi yëgee itam gis naa ne bon euh, ci li mu mujj xam ñu ngi ciy def seen démarche bopp parce que wóolu naa leen wóolu naa ko wóolu naa ay kilifaam wóolu sama suuf su réew parce que seen. Euh, vocation mooy ñu sàmm nu sàmm suñu njaboot bi ma xamee ne seen vocation mooy ñu sàmm nu sàmm suñu njaboot sàmm suñu alal moo tax dama porte plainte au niveau de euh, procureur mu jox enquête bi brigade de recherche ay kilifaam ñaar moo may stand by booba léegi nag bon depuis le 2 ba tey ji le 20 janvier euh, bàyyi naa leen seen bopp di leen dugli itam di leen woo it ci di leen ñaan di leen siyaare ñoom ñëpp ci kaw ba suuf di leen ñaan ci loo xam ne moom lañ bokk li nu bokk mooy lan mooy dëgg li nu bokk man ak ñoom nga xam ne euh, moomuñu ko moomu ko moom mi ma soupçonné moomu ko ñun ñoom ñu ni euh, jox dëgg it moomuñu ko moomuñu ko dëgg alalu yàlla maa ngi leen di ñaan ngir yàlla yolum yaate ma ci dëgg bu ko defee muy sunub sàkk ñun ñëpp ndaxte loolu rek la mën a def ab ñun ñëpp ñu sagoo. waaye moom daal jamono ji nekkul ci commissariat bu police bu Touba waxuñu la tam ci bann service lay nekk ci wàllum sécurité. waaw xam naa ko xam naa ko ci euh, xam naa ko xam na ko euh, dafa toll ne euh, enquête bi dafa am fu mu toll te bon bàyyi naa la seen bopp ba bi moom xam na fa mu nekk xam na li ma ndaxe woon ak la am du benn may itam. bon euh, du ma ne naxewoon na ma ko du parce que gëmën naa ko waaye ginnaaw bu yëf yi amee laay soo a xam ne service du direct ci commissariat bu Touba dafay ñëw ak benn cantonement cantonnement boobu nag euh, sëñ bi am na ci responsabilité wax naa ko ñaan na ci sëñ bi ñaanal na ma ci euh, wax naa ko ko ñu ngi duglu parce que ñun waa sëñ Bassirou la ñoom ci juróom-ñaari maam ñun waa Lambaye la ñu. ñi ma xam ñëpp xam nañu ñi ma xam ñëpp dañu ne kii de bu fekkente da cee laale xamu la bu la xamoon du ci laale parce que euh, du mën a yombe noonu. mais tey dañu gis nag mboolem sit yi nga xam ne ñoo doon bind lu ni mel policier lañ tudd te yow jamono ji li ñu mën a leeral mooy que na euh, donte ne policier nga koo xamee woon moom la moom la la wanoon nekkatut loolu kon tey jitim mënuñ ko adressé police ba léegi. du ma ne man policier la moom la ma wax moom moo ma ne la. daan nga ko gis muy sol ay tenue wala daan nga gis muy sol col ko police ak lépp léegi lan moo tax mënutoo xam ne police la déedéet man waxuma ne mënu maa xamante ne police la waxuma loolu dama ne homme de tenue la xam naa homme de tenue la gëm naa loolu moom wax ne police la li ma wax mooy police jaanatu bi du foofu la service direct dafa am cantonnement bu ko fi indi xam dafa am cantonnement bu waaye police jaanatu bi service direct ñoom nag rek bon euh, xam na li mu def xam na li xam na li mu euh, li ñu jotee moom dong kott moo doon yeewoo ci kër gi keneen yeewoowul ci kër gi ku dul moom waa man mënuma soupçonné keneen ku dul moom te moom donc kot laa wóolu woon ba tax ma bàyyi fi sama xaalis moom donc kot moom xamoon na itam xaalis mu ngi ci kër gi moom donc kot itam moo am moom laa ci amoon ci moom confiance que ne diggante le 12 ak di 17 xaaj bi mën na fay ñoŋ ba ma ñëwaat fii commencé sànce bi. moo ma xamal samay ja sama sëriñ sëñ mu tax amul woon ne am naa fi xaalis boobu denc. man sama jabar xamu ko sama doom xamu ko ku lu mën a yàlla ak mu xamu ko woon te te gis naa ne sans palanteer si biir lañ ko dajee. man nga ndikkalaat ci scénario bi ci ni nga xam ne foofa la jaare ak xaalis bi ci fan la nekkoon. xaalis bi mu woon ci benn walis boo xamante ne bii moom laa woon ci eh, ginnaaw sees boobu ma la woon léegi euh, scénario bi bon boo gisee image xam ne palanteer bi benn dañoo taxaw ci biir xëcc ko mu fàq wala ñu nekk ci biir puus ko mu fàq bon bon ginnaaw la tax mu ñëw néeg bi kenn formation wu fi dara foofu rek lañ dem direct jël xaalis bi ki ma sàcc dafa ma xam te la plupart dañuy wax ne ab sàcc sàcc siwul dafa jël si kii sàcc jëwul sàcc si dafa jël si xool na ba xam la muy jël si fa mu nekk mu dem jël ko parce que man ci milieu laa nekk xam naa bu baax mais sàcc sàcc siwul dafa jël si bon néew ma moom la néew ma du moom waaye man sama première soupçon moom la ndax moom laa bàyyi woon sama kër pour mu dugg sama kër itam pour ma xoolaale sama kër la bu fi dara xewee guddi googu moom donc kott mu yeewoo ci kër gi te xamul nu mu demee kon du ma a soupçonné kenn ku moom. ñaata weer la fi lu mel ni mas nga ko fay nemmeeku. musu fee am musu am benn <laughs> ñaareel bi am na fi mois de mars ba mois de janvier bi mercredi di li passé la dem mois de mars daaw 2021 ci peut-être mois de mars la fi ñëw ba mois de janvier bi passé koy mois de mars wala bon parce que ci jamono boobu comme format bi dafa commencé euh, comment dirais euh, sama autorisation jeex le 6 le 6 avril ma ñëw fi le 3 euh, wóorul ne préfet dina ma yokkal parce que commencé na réunion commission yi seddale dund bi ma daal di ñibbi le 4 avril keroog bi son excellence monsieur le président de la république dafay levée de corps ci le 4 avril bi fii laa ko seetaan ci kër gi dama seetaan le 4 avril bi rek daal di dem Dakar maa ngi lay pour boobu sax maa ngi maa ngi def appel ci son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall euh, sa premier àndandoo ñi bokk si sa premier àndandoo depuis dekkal ngor nga convaincre leen anciens émigré yi yi nga xam ne ñoo jëkk ñëw def wuyu sa appel ba créer fii emploi lu bon bon cinquante personnes ñi ngi sama ginnaaw may def ay salaire Euh, ba commencé woon di bëgg a installé Lambaye Express au niveau de Touba ci côté tabax ak jënd ak jaay ok euh, lii rek dal na ma fi euh, ñu si soupçonné un homme de tenue maa ngi ci def appel ci ci yow di ko def appel ci sa niveau ministre de l'intérieur bi nga xamante ne bii moom santam jom la ne borom jom borom jom ju mag. liggéey na 13 million ak borom jom ju mat ñu nekk bitim réew ñu ñu boole liggéey suñu 13 millions ba bëgg commencé liggéey parce que xaalis bi bu ko bu ma ko nar a investir feneen fu dul Touba xaalis bi du du nekk Touba xaalis bi li tax ma bàyyi ko fi Touba gi ko doon investir raison pour laquelle mu des fi euh, bon jom ju mat nag ñaari borom jom nag dajal nañ seen xaalis ba nar ko investir pour dundal seen i njaboot seen. Euh, yore seen wu kër euh, ñu ne ko donjet loolu nag ñu ngi ci sàkku ndimbal euh, di leen ci woo ci li ñu bokk li ñu bokk moom mooy lenn dama lay wax li ñu bokkunu lenn lu dëgg ci saayir ak baatin dëgg moom lañ bokk ci saayir moom lañ bokk ci baatin dëgg googu maa ngi ciy woo ñëpp. dañoo def 3300 ci àll bi parce que boo jëlee 2017 ak léegi ci laa toog ci dëkk bi. te le 11 janvier 1984 laa fi génn ba fi génn maa ngi yor âge de 24 ans yu manqué 2 mois janvier février mars ba am 25 ans ci àll bi ba 2017 rek léegi ci laa toog ci dëkk bi di investir complètement waaye appel bi nga xam ne moom di ci dëkk bi son excellence monsieur le président moo ko defoon 2012 ci immigré yi ko jàppale ci jamonoy dekkal ngor ba ñëw investir ci dëkk bi. ma xool sama bopp ma xool affaire bi se yàgg ma ne mais lii lu may niru man bu dee noos rek dëkk yi ma teg sama tànk continent àddina bi fu ma tegul sama tànk amul ndax sama liggéey restauration hôtellerie moo fa yóbbu may xool bu ma amee juróomi dërëm tubaab laa seeyal sama premier doom tubaab laa ko juróom moom la sëñ Saaliw ba ma amee juróomi lekk dërëm ba ba ma noosee ba noos ma lekk jàdd dërëm bi ñett dërëm yi ma indi ko Sénégal ñëw investi sama kër kër gi laa jëkk am ci àddina surface bi ñu suufa teeree teeru àdduna li ñu jëkk rëdd ne ma sa kër la muy pakk bii la mu bëgg ko valoriser ba jënd salon yi yëpp ne fi mu nekk ne samp kër mag a ngi ñëw yaa ngi dégg daal di samp kër nag toog Tuuba yaa ngi dégg bàyyi xale yi ci entreprise bi ñuy liggéey eh, ma nekk seen DG seen président directeur général seen PCA wala war naay wax noo ko mooy tuddee te ñuy liggéey correct jël seen seen salaire correct ma ñëw rek benn Samba Sura Bali boo boo xamul fu mu jógee war a ñëw rek yaa ngi dégg doo jël sama 13 millions dem yoonam mais xale bi nekk Italie lu ma koy wax xale bi nekk Italie ñi immigré yi mujj a dem nga xam ne 6 yi moom ma ko yónnee te ci biir 6 million yi yónnee na ko fi am fi naqar boo xamante ne bii ci biir euh, xam na ko xam naa ko. ba xaay bi mu ma jox mu dugg sama loxo moom dinaa ko dinaa ko defal fu ma ko war a defal ah ñun ñu nu ñuy dox lan la ñuy doxee yaa gi bëgg a liggéey bëgg a tedd te nungu liggéey fu mu tegu ñu ne xaay bi day nar a seey xaay bi musuma jëm ci saayir walla jëm ci baatit moom mooy sama xaalis lekk wut ñu ko jël nañu noppal enquêteurs yi noppal ma nañu noppal enquêteurs yi noppal ma noppal maître procédure bi sama xaalis dellu si parce que loolu rek mooy mën a am yaa ngi dégg euh, ñun ñëpp ñu siggi ñun ñëpp ñu nekk ci ab sac ndaxte lii kat wax dëgg yàlla mënu yombe nii man de du duma ko nangu man de man de ku ma xam ak làmbaay nga ma dëkk xam ne sama xaalis lekku euh, di wax opinion murit bi rek nañu xool léegi dëkk bii dañ ko war a wormaal premier ay dëkk bi ñi nga xamante ne bii dañ fiy ñëw nu ñu fi ñëwee rek ba nu ñu fi ñëwee rek te di te di fi def loo xamante ne bii naka si dul noona lu mel ni lii kàmbur yi la kër yi jàmbur di jël ay crampla yi jàmbur yooyu mu dafay war a jeex dëkk bi yelloo na leneen lu loolu ñooñu dañ leen war a dénoncer jóg fi parce dëkk bi boo waxee ñu ne kàmbur yi kër jàmbur jël nañ fa ay crampla jàmbur yi la kër jël nañ fa xaalis yooyu moom vraiment vraiment Touba yelloo loolu. tey jii lii laaj bi moo di nag euh, somo xaalis bu toll noonu di treize millions nga man koo denc ci kër te ñu bëri xam ne ne somme yi toll noonu duñ ko waruñ ko mën a denc ci kër donte sax mën na mën na nekk waaye tey jii liy laaj mooy lu tax mënul ko mën denc banque ndax tey jii bu fekkante ni moom jël si ko woon euh, maam euh, dajji wu ko woon xaalis dafay des di continuer mën na fa dem bay aatan wala. nangu naa loolu nangu naa loolu waaye dama ne bu fekkente ne mënul denc sa kër fooy denc. banque boobu bu fekkee ne amul woon sécurité bu amul woon videur kii boobu vigile bu fa ne banque bu ñu dajji ko banque bu amul woon vigile ñu dajji ko dëgg la banque banque lay war a denc nu mu naa loolu waaye xaalis boobu financement la war a dem rapidement yaa ngi dégg ci ay maçon ak caro parce que damal ne 6 millions yi rek bi ñu defee estimation dañu ne 6 millions yi rek mooy caro yi mooy bâtiment bi ñu wër léegi pour ñu karale ko façade bi yëpp 6 millions yi la te suuf ñëwul ciment ñëwul main d'œuvre ñëwul. kon looloo tax waaye nag du ma ne du ma du ma ñàkk du ma bañal nit ñi ne xaalis boobu waruñu ko woon a denc banque banque la war a denc man maa fi ñëw la 4 le 12 kon maa fi ñëw la 12 4 millions yi mujj ñu jox ma ko muy bisu alxames le 12 novembre bisu alxames la damaa ñëw jël 4 millions yi defal décharge ñi ma ko jox xaa seen xaalis bi jógee Italie euh, Fran Bachir ma dem. daal bàyyi ko fi parce que booba xamoon naa ne parce que bi ma màggal see ci ginnaaw ci projet màggal la indi meuble yi yëpp amoon yéene nag am soxna su fi ne ba commencé di liggéey fii Touba ci tabax ak jënd ak jaay ok euh, yére yi nga xamante ni bii moom laa màggal si yoon ba ci lii ba sol wóoli si bu nga xamante ni lii ma sol nii mi ngi woon ci biir wóoli benn benn ci wóoli si nekkan ci néeg bi kenn laalu ko am na yeneen yoo xam ne dalawuma ko ci biir màggal gi kenn laalu ko wuli fa def xaalis bi rek lañ jël kon ki ma ko ma xam la ki ma ko ma xam la lii ma sol nii ci benn ci wuli si nekk si néeg bi ci la bokk ak yeneen yu ko gën a valeur kenn laalu ko wuli fa def xaalis bi rek moom lañ jël dëgg la xaalis bi dama ko war a yóbbu bu ma amoon si son bu ma amoon benn benn réflexion bu wane ne yaa ngi dégg wóoluwuma ko bàyyi ko fi ak sama xaalis xaalis sama xaalis dafa des. tey bi nga koy wan xaalis bi da nga ko wan pour dénk wala nga ko wan pour ne man am naa xaalis bu ma fi def rek. ah bu laa ko wax nag am na parce que kër gi laa fi. moom yenn heure la fi ne am jamono bu ne mi ngi fi ba yenn heure la faral di guddi wala bëccëg. oh responsabilité moo ma jox këram sama kër sama kër la ma moom kese coono moo fi fanaan moo fi yendoo àbb na ma soo kër abal naa ko la preuve que ne xoolal euh, courant bi mujj bi ma ko mujj a fayal bi ngi nii la treize laa ko fay courant baa ngi baa ngi nii courant bi ma mujj a fay mu ngi nii la treize premier la treize la treize premier mois deux mille vingt et un cent cinquante huit mille deux cent cinquante huit mille deux cent cinquante huit mille laa mujj laa mujj a fay courant baa ngi nii maa ngi ko fay la treize premier mois deux mille vingt et un ginnaaw que mercredi ba la génn. moom courant bi fayoo lu mbokk ko ci xol bu tàng parce que waxuma ko woon mu fay courant maa waxoon ne maa ko waxoon ne lépp maa koy fay yow dëkkal rek sàmmal ma sama kër. tey jii moom dem na anamu ak ay xibaar looy am ci moom. waaw li ma amee ci ay xibaar ci moom mi ngi ci mi ci service am ci dëkk bi euh, ñi yore enquête bi nañu ma mënu leen a rëcc ñoom bon dinañu def seen liggéey procureur itam bi ma fi mujjee dem nee na ma bon toogal duglu ñu dinañ def seen suñu seen liggéey wóolu naa leen dañ def seen liggéey. tey daal yow daal euh, li nga bëgg carrément lan la exactement tey jii. li ma bëgg bëgguma leen lu rek li nu bokk ma leen koy ñaan leen ko saraxu leen ko yalwaan mais dama koy ñaan dama koy saraxu dama koy dama koy yalwaan ñu àtt bu ci dëgg bokk man ak ñoom dëgg la nu bokk ki ma seqal itam ku ànd àndul naa kenn sama xaalis am na ko jël kooku bu amee man bu ma amee jobuy man ak euh, xale bi nekk Italie ba ma bañ a tudd ndax i bokkam. Euh, euh, liggéey suñu xaalis ba dajale ko fi bu nu amee jom jooju ak fulla jooju ba teg ko yaa ngi dégg ku am ñàkk jom mën koo jël suñu ñun ñu war a am jom yi topp ko ba mu sës man làmbaay lañ dëkk nag dëkk bi ñu nekk nii suñu dana fi am dëkk bi nekk muy tuubaa dana fi am patrimoine si ñaar ñaar ñaari côté kër ndey kër baay dañoo seexal suñu imaam ci bat ci ci ci dëkk bi ki ki sañ ci dëkk bi dafa seexal sunu maam ki sañ ci dëkk bi itam di maamam di maam maaram amari ngoone dellu Kumba Faal moo ko joxoon suufas Bawol te amari ngoone dellu Kumba Faal moom ci 1849 ba 1990 mooy mbokkam de dëcc fu njóogu di maamu Seex Ibra Faal di mbokkam jéeri joor la di mbokkam te si yaasin joor galagaat na te tey seen joor gala moo jur joor joor jur maam Thierno mi mu si xaw a yaa ngi dégg. joor tey seen joor gala gànna mooy moo jur ko ma daw ko ma daw caatloo ma suuf ba wala sii dañ fay bokk yaa ngi dégg. bokk fi ñaari yoon nekk fii taalibe di taalibe daaru mi nam man de wér na ma ne wér na man sama xaalis lekku ci saayir ak baatin